napp bi moo newoon secteur bu gënoon di dugal xaalis ci gafaka réew mi après donc or bi si la ñëw jël place am donc pour vous dire que ni napp ji donc dafa am solo ci réew mi parce que soo xoolee nit ñi jën la ñuy gën a consommer au niveau au niveau national Sénégal donc euh, euh, autorité yu bees ba ñëwee donc ñoom dañoo euh, def lu ñuy wax transparence Euh, publier lu ñuy wax donc euh, les licences de pêche yoo xam ne ministère bi joxe woon na ko ci licence de pêche yooyu gis nañ ci dix-neuf yoo xam ne ay bateaux étrangers la donc euh, cent trente yoo xam ne donc ay bateaux nationaux lañu donc ci dix-neuf yooyu noonu muy bateaux étrangers yi pour gën ko faramfàcce tuuti mooy accord boo xam ne Sénégal am na ko ak Union européenne accord boobu nag si ñaari espèce donc euh, la basé wu mooy lu ñuy wax thon ak euh, merlu donc xeetu ton yi xam nañ ne ne bëri nañ am na ay listaaw am na ay thon rouge donc euh, voilà am na yeneen xeeti thon beneen beneen xeetu jën bi donc mooy merlu bi mooy banaana géeg ñaari accord yooyu la Sénégal siife ak Union européenne maanaam soo jëlee si wàllu thon bi nga xam ne moo si gën a am solo dix mille tonne la sur les cinq ans parce que euh, ancien régime bi ba mu ñëwee amoon na accord yu fi woon dañ ko dakkal léegi après ñu toog à partir de 2014 signé waat yeneen accord c'est sur cinq ans maanaam dix mille tonnes la par rapport donc ak euh, ton bi soo xoolee ton bi maanaam espèce migratoire la maanaam espèce boo xam ne du du du taxaw voilà euh, merlu bi espèce profonde la donc nappin bi aussi donc pour nga pour nga napp ko rek il faut nga dem fu sori presque ay au-delà de trente sept mille miles donc euh, pour nga napp ko ça veut dire que loolu bateau yu am euh, solo ñoo koy mun a napp. Uh-huh. maintenant nag euh, par rapport surtout ak ton bi ñun dañoo nekk ci benn organisme international mooy ICCAT organisme boobu donc benn organisation internationale pour la conservation des thonidés. ak de l'Atlantique Sénégal membre la presque depuis 66 lañ mettre en place organisation boobu noonu sur les 17 premiers pays yu ko mettre en place Sénégal si la bokkoon fu mu ne nii organisation boobu c'est 52 pays donc pays euh, yu si bokk bëri na États-Unis bokk na si France pays de l'Union européenne yi donc euh, Mauritanie et cetera maintenant solos organisation boobu mooy par rapport ak ton bi. Euh, espace ICAT donc di euh, di di Cap di Cap di Cap Town ak Cap Skirring espace boobu noonu maanaam ñoom ñooy définir par rapport ak quota bu ñu lay jox pour nappin ton bi gis nga Sénégal accord bu mu bu mu bu mu bu mu siifeek Union européenne sur les dix mille tonnes par an mun nga ko nappee Sénégal mun nga ko nappee Mauritanie mun nga ko nappee Espagne comme mun nga ko nappee États-Unis mais l'essentiel yow quota bu ñu la jox soo ko nappee dañ koy comptabiliser donc si si si si si si quota Sénégal maanaam loolu c'est l'espace de l'ICCAT bi nga xam ne donc fépp fu ton am yow mun nga dem nappee foofu d'ailleurs sax da ngay gis ne ne peut-être en deux mille donc vingt sur les trente et un navires yoo xam ne donc euh, Union européenne Euh, donc euh, ñoo waroon a napp fii soo xoolee presque vingt et ñoo fi napp en deux mille vingt sur les sur les vingt et un huit ñoo fi napp pour vous dire que ne maanaam ñoom dem nañu si yeneen zone yu yi pour nappin foofu pour mun a am ñoom seen quota yi nga xam ne siife nañ ko Sénégal mais dañ koy comptabiliser donc soo xoolee à peu près en pourcentage donc c' est sept virgule euh, zéro virgule sept pour cent donc loolu. par rapport ak Sénégal lum si siy si accord boobu ak Union européenne c' est c' est c' est quinze mille euros maanaam dix milliards sur les cinq ans. changé lool. ah waaw xam nga xam nga gars yi ñu nit ñu si bëri ngi wax ne ne loolu donc euh, c' pas avantageux parce que dafa tuuti montant bi actuellement on est à six milliards de recouvrement il faut ñu dem ba dix huit novembre accord Union européenne ak Sénégal si lay jeex. ñu xool ndax dinañ ko renouveler am déet maintenant nag il faut préalablement gars yi évaluer Sénégal day évaluer Union européenne évaluer maintenant les autorités yu fi nekk si conseil des ministres ñoom démb wax nañ ne dañuy xoolaat par rapport donc ak euh, yenn accords yi pour vous dire que ne donc euh, euh, sur les bateaux de l'Union européenne maanaam Sénégal lu mu siifeek donc Union européenne euh, si wàllum ñaari espèces yooyu noonu actuellement donc euh, par rapport ak tonnage sur les dix mille tonnes yi nga xam ne lañ lañ lañ leen accordel on est à peu près ay trois mille quatre mille tonnes on est loin de ce de de de, de voilà de de de de de ces de ces chiffres maanaam lu ñu leen accordé donc si bateau yi nga xam ne maanaam war na napp si waaxu Sénégal yi soo xoolee quarante cinq bateaux la quarante cinq bateaux. actuellement en deux mille vingt 2024 sur les 19 bateaux yu ñu publier récemment après la ñuy xool donc euh, avant accord bi di jeex ndax 19 yooyu yëpp napp nañ ci waaxu Sénégal am déet loolu nag conditions climatiques yi aussi mun na ko déterminer parce que mun nga gis na ne Sénégal conditions climatique yi favorable te comme dans la zone de l'ICCAT mun naa nappee ci les cinquante deux états ma dem xool si yeneen donc euh, euh, états yi ndax mun naa fa napp am mais dañ koy comptabiliser si kii Sénégal en tout cas su ko Sénégal dépassé dafay am ay sanctions soo jógee foofu nag par rapport vraiment ak euh, accord Union européenne ak Sénégal nga ñëw sur donc licence de pêche nationaux yi nga xam ne sur les 132 euh, licences yi nga xam ne jox nañ ko coow li bëri na ci parce que ñu ngi wax des prête-noms ñu ngi wax donc euh, des bateaux sénégalais yi par rapport donc ak attribution des licences au niveau ministériel yaa a une commission d'attribution des licences bi nga xam ne ministre bi maanaam moom moo moom moom moom moo moom daanaka moom moom mooy la personne principale si si si si si commission boobu maintenant nag dafa am ay membres comme la direction donc euh, euh, la DPM donc nga xam ne mooy direction maire au niveau de la pêche c'est la direction euh, maritime moom directeur bi moom mooy euh, président commission bi na ministre donc des finances am nañ ci représentant euh, ministre des forces armées am nañ ci représentant ministre du commerce ak aussi les acteurs maintenant pour nga am licence yow da ngay ñëw au niveau ministériel nga bind ministre nga ne donc man dama bëgg licence si par rapport ak tel xeetu euh, donc jën parce que quand même il formes de licence soo xoolee les démersales donc euh, côtières mooy sénégalais yi jën yu ñuy far di lekk lu bëri mooy yabooy bi mooy donc euh, Saint-Charles bi mooy wëyëng bi xam nga maanaam c'est de c'est des c'est des poissons yoo xam ne si à notre portée loolu c'est si ci jënu kaw ndox bi la mooy démersale côtière bi soo xoolee y a des démersales profondes mooy les poissons nobles mooy ay dorade donc ay jariñ xam nga donc euh, ay xeetu poisson noble yooyu nga xam ne ay sëdd euh, si loolu aussi démersale profonde yi am na ay crustacés mooy crevette bi si démersale profonde la nekk am na aussi ay céphalopodes ñooñu mooy yërëde yi ay yaranka xeet yooyu yooyu aussi si démersale profonde xam nga jën yooyu c'est c'est trop soo xoolee sa exportation sax lañ koy gën di def maanaam yow soo bëggee licence da ngay wax ne yow ban licence nga bëgg ñu attribuer la ko commission bi nag ministre bi moom dafay dem commission bi su liggéey xool ndax yow vraiment am nga droit am licence par rapport ak document yi nga déposé au niveau ministériel ñoom dañuy def rapport suñ ko accordé ñu bind ko suñ ko accordé wul ñu bind ko maintenant nag le ministre n'est pas tenu de respecter parce que nag moom la commission c'est pour avis consultation la moom day consulter il n'est pas tenu de respecter donc lu commission bi def su commission bi ne waaw nañ ko accordé ministre bi su ko neexee mu ne non duñ ko accordé su commission bi ne buñ ko accordé su su ko neexee mu ne nañ ko accordé donc attribution licence noonu lay demee mais nag par rapport ak prête-nom yi ñun au niveau ministériel ñun xamuñu prête-nom parce que quand su nekkee yow da ngay ñëw avec des documents et des formes da ngay dem créer société soo créer société y di d'autres services de l'État yu créer société léegi nag si création société boobu yow soo ñu indilee des documents ñun dañoo ne par rapport à cette société la il faut cinquante et un pour cent nga xam ne donc sénégalais moom moo ko moo ko moom ñun si loolu la ñuy basé wu par rapport pour pour wax ne lii c'est c'est bateau bateau national la voilà donc maintenant nag autorités yu bees yi nee nañ dañuy càmbar pavillon Sénégal loolu suñ ko càmbaree. dinañ xam exactement ndax véritablement euh, prête-noms yi donc am na amul surtout dañ koy jagleel si wàllu chinois yi la ñuy wax ñoom ñoo nekk ñu mujjee ñëw ñoom la ñuy wax ne donc y a beaucoup de prête-noms yoo xam ne mais ñun en tant que ministère autorité compétente ñun véritablement mënuñ la wax ne ne donc lii prête-nom la am déet parce que documents yu ñuy am c'est des document yu ñuy càmbar création société bi ngay def parce que fi ngay créer société foofu la donc euh, peut-être la ñuy xoolee ndax donc voilà c'est bien fait ou pas mais ñun suñu parvenir commission bi saytu donc attribution licence yooyu noonu lay. mais mais yéen am benn laaj. ci loolu yëpp.